asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi mbokki taalibe yi jullit yi ñu ngi di nuyu li leen ziyaare ci bés bu tedd bii ñi topp ma kenn àq mu ko doon toppee baal àq ñëpp di ñaari ñun ñëpp bokk balante àq kon kàddu yi moom jërul guddal góor góorlu bu baax rekk ci njub njub mooy buntu lépp lu baax nanu gën a góorlu bu baax waxuma sax nu am diine waxuma it nu bëgg diine waaye li mu wax mooy nu gën a fonk suñ diine lu gën a fonk it sunu taalibe jikko yu baax yu tedd yépp ñu makaarimul axlaaq lépp ngi ci biiru taalibe lu góorlu ci ñett jéego yooyu rekk lu nu gën a suubu ci yow yoon di gën a xam sëriñ bi di gën a mën a dund sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boroomam ak yonent bi mu ko tegtal euh, jërul ñu du ko guddal mën nañ ko yemale foofu rek di sant ñépp nag ci liñ ci weesu ci doxin wu rafet bi nga xam ne xormay sëriñ bi ak tawfiqam mu nu gàttandu ban mën a jéggi li nu weesu jéggin wu gën a rafet noo ngi koy noo ngi sant suñ borom bu baax mi nu boole sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax mi suñu lépp tey ëllëg di suñu biir du suñ bitti kon jërëjëf jërëjëf di ñaan bu baax a baax suñu borom gën noo gàttandu tawfiq sëriñ Tuubaa nawet bi jiitu ci lan ci lépp di ko séentu sun boom gàttal ñu ci ak tawfeex sëriñ bi ñu amee ko nan ko bëggee wala lu gën a sax kawe suñu jot loolu lépp nag cant gi moom jiitu na te kanam rekk la jëm lu nu mën a bëgg ak lu nu war mën a xalaat cant gi jiitu na ba noppi la ca des yaakaar rek la ak rafet njort te loolu yaakaar ji mat da sëkk rafet njort gi amul fenn fu mu yem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf